waaw ñi ngeeg euh, kenn koo xam ne xam na Adji Sarr bu baax euh, umpaañam la euh, ñu fas yéene séq ak moom waxtaan sa digganteeg aji ci wàllu mbokk lan la Adji man yumpaañam laa ndax nijaayam laa doon sëyal ci jifir mhm. waaw bu nekkee ak moom jifir tamit ndax Adji nekkoon na jifir avant muy ñëw Dakar mhm. bi mu ñëwee nekk ci fir boobu man maa ngi yor foofu restaurant. Mhm. bi ma fa yoree restaurant gisante ak nijaayam ñuy bëggante moom mu ñëw nekk ci man avant boobu nijaayam taxaguma. Mhm. bi mu nekkee ci man daan ma jàppale ba mu yàgg mu ne liggéey bi dafa met mhm. fekk ci fan yooyu noonu jëloon na fa téléphone jàmbur boo xam ne ni iPhone la woon ba xale yu góori mool yooyu sax indi woon fa ay xeex foofu ay xeex yu metti Mhm. ñu jël ko rawale ko yóbbu ko benn dëkk bu ñuy wax yaayam ca gannaaw jifiir ci mhm. côté booy dem palma ci euh, Fimela laa ma nga ci côté yoonu campement Ndangan mhm. waaw léegi bi mu nekkee foofu ba mu yàgg mu jugee fa na day dem fii Dakar benn dëkk bu ñuy wax benn koñ bu ñuy wax Grand Yoff la wax na fa lay dem Grand Yoff benn tantam moo fa nekk yoroon fa restaurant moom tamit bi mu ñëwee yàggu fa dara mu daal di ne day dem Pikine wuti foofu liggéey ci benn magu yaayam mhm. mu bàyyi foofu tantam bi ne Grand Yoff bi mu demee Pikine ci magu yaayam bi mu liggéey foofu tuuti ne am na liggéey mu woo sama jëkkër ne ko am na liggéey ci benn salon massage bi mhm. ne am na liggéey ci salon massage ma jëkkër ne ko waa baax na yow kenn dafa xamul loo dëgg ndax luñ la dégg tey bu subaa ñu dégg te def bëggoo liggéey mu ne ko fii moom dinaa fi liggéey ñu dem ay fan benn xaritam ne ma aji de nee na instant bii dafa am bërëb ndax day maase ku ñuy wax Ousmane Sonko mu ne ko kooku ci lan lay liggéey man sax waykat yi mu ne ma kooku ci affaire ministre politique yi lay liggéey ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko kon baax na yàlla ko ci yàlla jàppale ñu demaat demaat demaat ba ca kanam mu woote waat ci sama téléphone boobu nijaay mi téléphone bi mu wootee sama téléphone ma ne ko kooka la doomu jàmbur mu ne ma waa tante ma ne ko ça va ñu nuyeen pare ndax sama téléphone bi bu ma la deful bu ma ko yokkul def ko may libre. Mm-hmm. du ma la dégg mooy téléphone yi doon jar cinq kii simple Italie. Mm-hmm. moo ne ko xaaral ah, ma mu ne ma jox ma ko ma dem ca mbaar mi fi ma doon toggee noonu tam am mbaar. Mm-hmm. boobu maa ngi togg añ ceebu keccax ma yëkkati sama cin. téléphone bi ma ko wuyoo pare ma yëkkati ko jox ko nijaayam ñëw nag sëgg foofu di yekk. ma dégg ci téléphone mu naan nijaayam man di nijaay. dafa am liggéey bu ñu ma bëgg def loo nijaayam ne ko loolu ban liggéey la mu ne ko liggéey bi de dañ ne Ousmane Sonko bi may maase naa ko waxal dara nijaayam ne ko bu fekkee loolu la nañ la ci jox loo xam ne bu ëllëgee dina la mën a jëriñ ma sigi xool ko ne ko hmm? mu ne ko nañ la jox boo xam ne ni bu ëllëgee dinañ ci mën a jëriñu sax njaboot jëriñu ci ndax alalu euh, politique alalu baytimaan la dégg nga Mm-hmm. alalu bayti maam la loo ci laaj dañ la koy jox te luñ la jox nag alalu àdduna bi lépp lañ la jox. Mm-hmm. mu daal ne ko waa baax na ñu teg ci ay fan mu ne ko yow aji luñ koy waxal ku nekk nga wax aji songo aji songo dawax ji mi ngi bëgg a bëri kii lii muy def nii lan la mu ne ma sa yoon nekku ci man xam naa da nga mos a teg bët sama famille bi man ne ko man amoon may tegante bët ci sa famille parce que man sa famille man ne ko man soxna dong laaj kon oma leen lu ma ci lu ma ci dogalul mu ne ma yow sax da nga waxoon da nga bëgg a def commerce ma ne ko waaw ma ne ko est ce que xam nga benn mbir mu ne ah ma ne ko coow li lu yemul fii man dina fexe ba dinaa dem wax ne yow aji lii ay fen la mu ne ma ah ma ne ko waaw mu ne am nga fi tam ma ne ko capable naa lu ëpp loolu mos naa la ba xaañ xeer mu ma ma ne ko bii paa dinaa dem ma wax ne lii du dëgg mi ne ma dinaa xam ndax am nga fit boobu ma ne ko am naa ko mi ne ma ndax sa commerce bi nga doon ma ne ko maa ngi la ko ne ma jox trois cent mille nga liggéey da nga bàyyil ma ay waxi Adji Sarr bu ci wax ma ne ko dinaa ci wax bu dee moo tax nga jox ma trois cent mille denc leen seen trois cent mille wax ba sagar xeeñ man dëkk mhm. li may wax nii xam naa ne suñ ko déggee sax dinañ xam ne man sama baat la ndax maa ko wax jaay mhm. ma xam na ay famille ma xam nañ ma mais li muy ko laaxuma ko moom moo ko def man maa ko wax waaw. kon daal mbir mi yow jàpp nga leen la complot la bu leer. bu leer ni midi ndax nijaayam ci la bokk. Mm-hmm. bu leer ni midi laa la wax nii foofu maa maa ko wax. Mm-hmm. waaw léegi nag boobu ba léegi nag yow amuloo ay menaces ak dara yuy dal sa kaw. kenn waxaguma dara. Hmm. waaw kay. waaw. Euh, léegi Adji Sarr moom amu leen benn xibaar ci moom. man de dégg ko ma benn xibaar ci moom. Hmm. est-ce que nijaayam boobu mën nañ xam kan la. ah nijaayam na mu dëgg yàlla moom mënu ma joxe tuwaat. bu hmm. ngeen ko gisee daal mu ngi ji fiir su ngeen ko bëggee gis tamit mi ngi ji fiir. bu ngeen déggee ji fiir moom di ngeen xam. lan la nijaayam boobu di liggéey. nijaayam boobu day dem géej daraan maare ji hmm. day dem géej di maare ji waaw waaw lu yan ci kàddu nga bëgg a yokk ci mbir mi rek pour mu gën a leer man daal li ma ci mën a wax mooy kan xale la mais xale bu yàgg luubal la moom aji lañ koy wax mais yéen aji saar ngeen xam yéen waa Ndakaar yi koy wax aji saar mais ñun aji raabi saar lañ xam ak Rabi Sarr lañ xam xale bu yàgg luubal la te daawut tee loxoom tamit hmm. teewuloon loxoom bi dara da daan yóbbu daal li ma ci gën a xam daal mooy kan gor booy lekk lekkal lu lew man daal loolu laa xamoon comme lu ma koy wax waaw. Hmm. maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci leeral yi ñu indil jërëjëf.